ci weer wi sës ci weeru koor muy weeru kori yenent bi alayhi salaatu wasalaam soññi ñu ci ñu woor ci juróom benn fan ñu ñëwoon démb ci boroom xam-xam yi luñ ci wax ñu indi woon ci ñaari mbooloo ku nekk am loo wax ci juróom benn fan yooyu ñu nekk tolloon ci wax ju njëkk ja indi woon ci ñetti xadis mu des benn muy xadisu ibnu huzayma bi wax ne siyaamu shahru ramadan bi ashara bi asharati ashhur wa siyaami sitta ayyaam bi shahrayni fa lizalika siyaamu sana fa siyaamu sana ibnu huzayma ne ñëw na ci xadiis yonente bi salaatu wasalaam mu ne woor weeru koor yaa ngi ci am tiyaabay ku woor fukki weer woor juróom-benni fan yi tegu ci weeru ko muy weeru kori kooku yaa ngi ci am tiyaaba yi ku woor ñaari weer boo fukki weer ak ñaari weer yi mu nekk fukki weer ak ñaar moo tax mu ne fa zalika siyaamu sana lool day day tolloo ku woor at ndeke ku woor weeru koor di nga am tiyaaba yi ku woor fukki weer ku woor juróom-benni fan ci weeru koor yaa ngi am tiyaaba yi ñaari weer soo ko boolee muy fukki weer ñaar muy at mi nga am tiyaaba yi ku woor at lu tax alxuraan moo wax ne benn boo def ñu fay la fukk comme boo def ñu fay la fukk nag tiyaaba yu màgg yooyu nga ci am mu ne xadis yi ñu jàng muy ñett démb benn tey lañ ciy jële ci ay tegtal mooy dallat haadihi al ahadis fadli wa istihbaabi siyaami sittata ayyaam min assawaal liman saama ramadaan nee na xadis la muy tegtal mooy ngëneel ak sopp giñu sopp ak bëgg ku woor juróom-benn fan ci weeru koor yi nag ku wooroon weeru koor ki woor weeru koor kooku lañ wax ne mu woor juróom-benni fan waaye ku woorul weeru koor moom yoonam nekku ci beneen bi mooy yow mi yor boru koor yëgal ne wooragoo weeru koor ndax weer lañ la wax boo ci amee ay fan yoo dog ci feebar wala ngant bu dabu dab comme jigéen su boobaa yëgal ne wooragoo weeru koor sa weer manqué na moo tax am na benn ndollent bu sew bu mu ci teg mooy liman soama ramadaan ñeel ku woor weeru koor kon yow mi dese yëgal ne gaawatul sa kemtalaayil kàttan njëkkanteel nga fay balaa weer wi jeex nga woor ca ngëneel ya bokk nee na wa anna jazaauhu ka siyaami dëhr yow mi def loolu nga xam ne woor nga sa weer ba mu jeex nga teg ci juróom benn fan yëgal ne am ngay fay am nga fayu ku jamono ad dëhr az zaman am ngay tiyaaba yi ku woor jamono lu tax mu ne wa zalika li anna alxasanata bi asari amsaaliha la ko waral nag mooy benn tiyaaba boo def fukk tiyaaba la yàlla di fay boo defee benn tiyaaba yàlla fay la fukki tiyaaba nee na fa ramadan bi achara weeru koor ñu la ciy fay fukki weer fukki lañ la ci fay bi achara ti ashhurin fukki weer la ci yàlla di fay boo wooree weeru koor nee juróom benn fatin wa sittatu ayyaam min ash bi shahrayni juróom benn fan yi nag suñu borom subhanahu wa taala dina la ci fay ñaari weer soo ko boolee fa dalika ithna achara shahran wa huwa sana kaamila soo ko boolee muy fukki weer ak ñaar muy at mu mat sëkk yow mi woor ramadan teg ci juróom benn fan ci weeru kori yow de yàlla tabaraka wa taala bindal na la tiyaaba ku woor at allahu akbar loolu mooy wax ju njëkk ji ñi ñoom li lañ wax waxu ñaareel bi mooy ñi wax ne jëfi waa madina fi'lu ahlul madina haysu laa yuraf ahaduhum min ahlil ilmi wal fiqhi yasuumuha ñoom waxoon nañ dañ koo sib ndax nee nañ xamuñu kenn ci boroom xam-xam ya ku doon woor juróom benn fan ci weeru koor ci amaana la ko waral mooy xam-xam moo yegsiwuloon ci ñoom jóge ci salafu saalix loolu tax ñoom ñu ne woor juróom benn fan daal ci weeru koor yi ca waa Madina lu ñu sib ndax waa dina xamuñu ko woon mu war a nekk nag tomb bu ñu war a taxaw suba leeral ko bu baax a baax a baax a baax ndax léeg ay nit kon incha allah ci kàttanu yàlla suba pour bañ audio gudd ñu leeral jëfi waa Madina boobu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu